léegi maa ngi fi toxu si ñu nekkoon fii doon jàng école école bi doxul ñu dem ba ci biir ñu bàyyi dugg ci métier bi bi ñu duggee ci métier bi di liggéey si lañ ñëw aménager fii dafa nekkoon ay mbalit ay lépp nekkoon fi ay kàmbala woon ñu sëkk ko ba mu rafet di fi liggéey biñ fiy liggéey depuis am na ñu fi nekk vingt cinq ans am na ñoo xam ne ñu ngi fi depuis trente ans ñu ngi liggéey si jàmm nekk ay éducateur comme école bi nu mu nekkee nu mu amee ay éducateurs des jeunes de rien du ñoo xam ne bëgguñu liggéey dañuy taxawaalu ñoo communaux ak maire beex affaire yooyu pour jëlee ñu fi ñun nag dañu wax ne mun nañu defar mun nañu aménager defar pour liggéey mais comme te gouvernement bu bees bi la ñuy wax ne dañoo affaire déguerpir affaire déguerpissement dañu yaakaaroon ne gouvernement bi ci ginnaaw lañ ko bàyyi mais or que gouvernement bi moo ñëw bëgg suivre nit ñi nga xamante ne des gens inutiles yoo xam ne ñu ngi ci dëkk bi amuñu benn apport bu ñu mën a indil société bi ñun ñu ñëw am nekk ay éducateur di ja di jàngal nit ñi ay métier pour ñu bañ a nekk ay bandi ak ay vagabond yaakaar dee tuxkatu bon fii ñoo fi nekk ak ay sàcc ñuy éduquer ay nit pour ñu kii ñu ne ñu du leen doo leen ko fi defee.